Diom pour defar réew mi ma fàttaliku si euh, phrase bi nga xam ne tam Messi doon utiliser que ni ñoom dañuy essayer pour mettre le chaos en en plus ñëw ay ñëw nekk ay. mais loolu la ñuy mel concrètement. mais loolu la ñuy wax. Sonko est-ce que war na leen daal Alphan. dama né dama né ñun xam xama man xama man bala Sonko di wax ni man yag na ko wax fi képp ku ku ma yàgg a taxaw fi yàgg na taxaw ne la société civile bu ñuy gis au Sénégal c'est comme des politiciens encagoulés ma yàgg naa ko société civile bo xamante ne moom mooy choisir ci lu muy wax bu ñuy dóor kii du wax mais ki bu réagir ñu wax ñu bind ñu commencer di wax comme ay dem yu jëfuur lolu société civile la est-ce que lolu société civile la. soo ko société civile dafa né ku togn ñu né ki mo togn voilà ku togn da né ki mo togn mais société civile bu Sénégal du def loolu balaa Sonko di ko wax man wax naa ko fi wax naa ko ci ay émission yu bëri ci ay plateau yu bëri yàgg naa ne xam nga ma ne société civile bu ñuy gis Sénégal dama ne ñun Sénégal suñu société civile hmm. xaw ma xaw ma ndax société civile lañ ko war a tuddee wala xaw ma ay politiciens lañ leen war a tuddee xaw ma leneen parce que société civile boo xamante ne bu ñu dooree ñii doo wax mais ñi bu ñu riposté di di dóor ñe yow nga né non warul waxé premier ministre la premier ministre warul wax li premier ministre war non mais tu vois société civile bu jeng dafa jeng ça lolu mënoo ko tuddee société civile des gens qui veulent déstabiliser ce pays ay nit yo xamante dañuy taxaw di naan jomaay jomaay mo baax sonko mo yes ñaari nit yu yàgg ànd depuis dix ans di xeex ba d'ailleurs moom je lance un message au président de la république direct son excellence monsieur Bassirou Diomaye Faye parce que Fanny, Fanny, fan yi gis naa ay nit di wax di woy Diomaye ku baax la xale bu la mais problème bi kenen ki la Khalifa <laughs> problème bi kenen ki la mais Diomaye kuy mais mais du Khalifa seulement dama ne du kese Barthélemy Diaz l'a di Maïmouna Ndour Fay l'a di kenen ak kenen non Jomay mom baxna na mom mom ku bax la ku yaru la mais problème bi kenen ki la. kenen ki. mais président de la République l'année ne. je sais que la culture. lolu mais gis nga ñuy taxaw tay di ñoo taxawon ne da ngay da ngay da ngay dañ leen di yóbbu kaso gis nga ñuy taxawatee di naan jomaay dafa baax ñoom ñoo ne si il faut il faut tuer quatre-vingt-dix pour cent des sénégalais pour que Sénégal am stabilité dama ne si il faut tuer quatre-vingt-dix pour cent des sénégalais de Pastef pour que Sénégal am jàmm il faut le faire ñoom ñooy taxawtee di naan jomaay baax na Sonko moo bon pour jéem a féewale ñaar yi gis nga ñi doon pexe ñi doon pexe pour a am candidat ci élection présidentielle yi passé ñoom ñooy taxaw tey di xalamal jomaay di naan jomaay ku baax la mais Sonko moo yées ngeen de ma Sonko moo baaxul donc président de la République jomaay war na très attention les ennemis d'hier ne peuvent pas ne peuvent pas être tes amis d'aujourd'hui loolu mënul ci politique non nous nous fàllu loolu mënul nous nous les ennemis d'hier de Pastef ne peuvent pas être aujourd'hui des amis à djamaï ak transhumance bi nii nu mu liwee. dama ne mënul la ko wax dalay nax yow lay yow lay en otage c'est-à-dire qu'ils veulent isoler Sonko pour mener à atteindre djamaï c'est ce qu'ils font dans ce pays. donc tant que Sonko est là. tant que Sonko est là nous atteindre djamaï mënuñu ko nous loxo que ce pays-là, il y a des lobbies. Il y a des lobbies dans ce pays. C'est ces lobbies-là qui dirigent le Sénégal depuis 1960. Les Bougouma et Gfofu, faut que je pour les Sénégalais comprendre. Dans ce pays, il y a des lobbies. Un lobby très fort. Ils ont des milliards et des milliards. Si ça, un président de la République l'a financé. Mais la famille féminine de la mais nous devons la financer. Le bio, il a milliards ñëw jéem la proposer mais dafa am luñu bëgg. gis que ci le dit que ñeu légui ci société civile fa may ma ma les fofu s'il te plaît. gis que bi yi ma lay wax ni ni que ñom ñoo sonal Abdou Diouf sonal Abdoulaye sonal makissal parce que le yoyu lan lañu defon makissal makissal ba mu au pouvoir tak dafa né une gestion sobre et vertueuse du créé pour ñom of pour ñun. Macky Sall jaay ko Sénégalais ba Sénégalais yi adhéré yéen ko waaw Sall ngaali euh, lam tooro bul gëdde yooyu fi nekk mais lépp yooyu dañoo fexe ba téye Macky Sall am na taas lan la ñuy def le conseiller directeur de Macky Sall ba dara Cissé yàlla suuf ko yof si yàlla ko yàlla baal fu mu nekk foofu Aliou ba dara xam nga lan la ñu def Aliou Badara Cissé moo doon conseiller spécial bu Macky Sall moom moo ko doon son ami intime moom moo doon wax Macky Sall comme Bassirou Diomaye Faye tey ak Sonko. mais xamal lépp ce lu ñu def Nous def tout pour isoler Aliou Badara Cissé Macky Sall dàq ko génne ko ci pouvoir bi bañu am problème ñom ñaari gis nga bu ñu isolé Aliou Aliou Badara Cissé lan lañ def dañu tégg loxo Macky Sall motam Macky Sall dérapé ba c'est le c'est le même lobby mo ñëwaat ci jomay ak Sonko. société civile loolu la bëgg dama né waxuma société civile lëbi laa la wax dama né c'est le même le mo ñëwaat ci Sonko ak jomay fan yi le bi xam ban campagne lañu kenn dañu dañu dem infiltrer tous les chaînes au Sénégal les médias qui sont au Sénégal le lëbi dañu dem infiltrer les médias au Sénégal di fay di fa say say sen sen nit. déplacer sen nit comme ay chroniqueur ay journalistes, analystes politiques ay avocats ay juristes le bi yëpp.

Euh, les ennemis, les ennemis de Pastef ne peuvent pas être aujourd'hui des amis à jamaï Chaque jour, Non, mais c'est des ennemis à ah, ci bi. ni di taxaw. Ah. alors avant la wax li li il la. Euh, euh, vraiment euh, c'est une personne que j'estime beaucoup franchement pour ma euh, de dafay euh, ruube rek mais euh, c'est pour seulement animer le débat Moi, tax ma taxawee fi de position ak de posture mais du dara je pense que comprendre exactement et on naa expliqué expliquer mais il ñi mën nañu gëm lu leen. amoo leen li ngay expliquer Fallou yow tinage yow Fallou yow fallu il faut arrêter ce que tu dis aussi. Euh, sans plus tarder ginnaaw li nga xam ne que moo di attaque bi nga xam ne itam attaque na ko euh, la société civile dañuy ñëw si wàllug.